bu ko defee mbokk yi ñu dikkaat ak yéen ci yóbbalu bis bi comme nuñ ko baaxoo defee ci waxtu wi di ko dellu di jëlewaat ci téere Serigne bu Mbacké boobu nu wooyee ay ni bu wolofal bi te leneen nekk ci xëtu 123 la ci des nekk ci xëtu 124 su ko defee mbokk yi suba la àllarba di dajeeg ñaar fukki fan ci aw maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ca gàdday ga maanaam 1442 hijriya di dajeeg tamit 3 euh, février 2021 su ko defee mbokk yi mi dafay wax ni ñaar fukki fan ci aw maamu koor lim la boo xam ne moom it fattul mënees na ko jëfandikoo kenn du ko wattandiku moom limu ñaar fukki fan ci aw euh, maamu koor nga xam ni kon mënees na cee tàmbali dara mbaa ñu fas ci ab sëy wala ñu yeggale ko ci wala ñu sanc ci wala ñu daloo ci wala ñu xarafal ci ay gone mbaa nu wattu ci bu dee jëmmi àllarba ji nag ndaxte nekkul àllarba ji mujj Euh, te lim bi fàttul moom liñ ci gën a taamu rek mooy euh, tàmbali ci tàmbali ci waaye nag liñ ci wattandiku moom jëmmi àllarba ji ba tey mooy euh, sangu ci mbanu fóot ci mbaa nu tàggoo ci mbokk yàlla na yàlla fayal sëriñ bu Mbacké radiyallahu anhu ngeen baal ñu àq bu suba jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu